koy wax jigéen a tax parce que jigéen ñi ñoo gën a takku da xool fii tey dafa fees dell ak i maas lu mat 2000 personnes a jigéen dafa am takku jigéen dafa am njëgteef am na ñoo xam ne tey lu nekk laa leen di defal te tey teguñu fi seen tànk mais xoolal ni jigéen di jalaaw takkoo topp si man di ma jàppale fas yéene nu jàppale président Macky Sall dañ leen war a dooleel dañ leen war a dooleel ku mel ni man Macky Sall depuis mu fiy falu man may jënd tenue may joxe lepp té musuma feeñ fenn nak man fu mu nekk ni dama taxaw pour and ak bépp buy mbolo mbolo jigen ci jalaaw pour fexé feeñ nak feeñal sama bop ndax daf lu gor man jigen man nako lan moy sa relation ak Mamadou Gueye danoo yàgg mu nekk nit ku sincère ñuy and ak mom fukki at mu nit nit nekk nekk nekk gu deggu nekk goru jambar motax tay

pour jàppale président Macky Sall si deuxième mandat parce que Macky liggéey wax dëgg yalla Macky liggéey Bo génné ci si terre bi nga xamné Macky liggéey so démé ci si raay bi nga xamné Macky liggéey so démé ci si hôpital yi nga xamné Macky liggéey so démé ci si école yi nga xamné Macky liggéey so démé ci si stade yi nga xamné Macky liggéey so démé ci si ju ji doole hôpitaux yu bees yi nga xamné Macky liggéey na li mu man man nak je m'engage pour jàppale président Macky Sall. merci beaucoup merci beaucoup merci. merci DJ. mënuma wax nag. non non non yéen a siy jàpp de.